alors Siteu champion ñu ngi lay nuyu tout d'abord di la masawu coono ci deux ans yeeg ak xew ci làmb yëpp ñu leen di masawu coono yéen ñëpp ci promoteurs yeeg amateurs yi supporters alors tey génn nga ci waxtaan ak euh, waa CNG lan ngeen ko waxtaanee ci ab tënk waaw salaamaaleykum àdduna di wax na jërëjëfe borom Touba comme ni koy waxee chaque jour waaw génn naa CNG laa ñëw wuyu si leen mais ñëw naa fii dem nañ ma laaj nañ ma ay question laaj nañ ma aussi tamit. waaw waaw si làmb ji ak ci côté bi nga xamante ne. yee ci lañ amoon mal entendre pour laaj ma man tamit wax naa si sama xalaat li ma xam ak li ma xamul tamit xamal naa leen xawuma ko. yee te aussi tamit fekkeewu ma yu bari waaw parce que si côté bi ma nekkoon mais li ma mën a wax daal mooy. CNG daal wane nañ ay kilifa lañ wane nañ ay lépp lañ ñun instant bi réponse bi la ñu xaar amuñu dara lu ñu wax lu dul déglu leen ñu xool lan la ñuy def lépp lu ñu def ñun ñu ànd seeg ñoom. li ma li tax ñu waroon ma jox victoire lu tax ma wax baat boobu mooy dafa am benn membre bu ma woowoon bi affaire bi amee ba pare instant yi Papa Sow fajoo mu ne ma dugal si biir géew bi ñu jox la sa victoire ma sangu samay saafara sumbi samay dàll pour ñu jox ma sama victoire mais wax ak ñoom xaw ma lu mu wax ak ñoom mais bu mu waxee ñoom ba bare ci lañ mën ne amuñu dara luñ lay jox parce que nos verdicts la ñuy def ndax parce que instant bii nii munuñu la jox ndax messin bi nee na mënuñu joxe victoire. ma ne ko d' accord man leneen lu ma neexul rek dinaa dem bind sama lettre CNG parce que CNG ñu ñëpp la fi nekkal te tey wane nañu ñu ñëpp lañ fi nekkal ndax parce que amul ma dara lu may wax si Papa Sow te laajuñu ma si Papa Sow si ni ma ñëwee si làmb ji ak li ma fekkee li ma fekkul lañ ma laaj. li ma ci xam wax naa ko li ma ci xamul tamit xamal naa leen ne xaw ma ko mais loo ci mën a dégg rek mooy mbooloo bi may topp du ñëpp laa xam mais lépp lu ma mun si sensibiliser maa ngi koy def képp ku ma xool ni may waxee soo ma bëggee noonu ngay waxee képp ku ma xool ni may defee soo ma bëggee noonu ngay defee waaw loolu rek laa mën a wax leneen li ma mun a wax nag damay bàyyi ba waa CNG génnee seen seen xalaat bu ñu génnee man dinaa xam si lan laay wax si lan laay développé.